ñetti waxtu ci ngoon nanu jàppoon daje waaye force de défense et de sécurité yi ñoo jiitu ci bërëb doxu ñaxtu bi waa kujje gi doon waajal mujj la am fii ci Saint-Lazare lim bu takku ci ay takk der ñoo fi nekk ngir doxal fi kaaraange waaye jàmmaarloo dana mujj tàkk gannaaw ba lenn ci ay nit dajaloo wee fi bërëb bi. mu nekk tere bu ñuy ñaawlu. il faut que les gens nit yi dañoo war a wane di leen nakar yi loolu yoon ci boppam moo ko mayee lii nag askan wi moo war a jug jàkkaarloo Macky Sall woon ko ni doy na sëkk. di cey yàlla la. manifestant yi tàmbali di tontu ak ay sànni doj. waaye takk der yi wéyal seen liggéey ba maîtriser mouvement bi. lu bëri ci ay njiit ci kujje gi teewoon nañ tey ca rond point saint ku ci mel ni Pape Djibril Fall Daouda Ndiaye wala sax Guy Marius Sagna ci ñooñu sax am na ñun ci jot a teg loxo muy Aminata ture ak candidate bii di Anta Babacar Ngom